asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi euh, di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina seen émission sociale euh, toute la ville en parle samedi bu jot euh, dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba tey ji nag ñu daal di dalal Gora Khouma bu Union des routiers du Sénégal ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni transporteurs yi actuellement ñu ngi koy daal di jànkonteel want tamit Euh, wax ci accident yu bari yi nga xamante ni actuellement euh, mi ngi am ci kaw euh, tali bi nit yu baree bari di si faatu di si ñàkk seen bakkan lan moo ko waral lan moo ci solution ñu fas yéene ko waxtaanee ak kile di Gora Khouma ma koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw su Ndeye Comba ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu <coughs> képp kuy déglu Rewmi FM. 97 point 5 di nuyu permis de conduire di nuyu carte grise ñi ma mandaté. Eh. <laughs> waaw may wax ci seen tur. Mm-hmm. di nuyu askanu senegal gépp di nuyu kilifa diine yi. Mm-hmm. Eh, ñi di jullit ak ñi dul jullit di ñaanal xalif général bu laayeen. Mm-hmm. fanu gudd ak wér ak xéewal ak sutura. ko tamit xalif généraux yëpp ñaan la ko askanu senegal gépp jàmm am na fi mais yal na yéen gi yàq gën a yàgg mm-hmm. yal na yàlla gën a dolli jàmm ndax bu ñu ne jàmm amu fi rek mm-hmm. buñ ko xoolee yeneen réew rek dañu xam ne jàmm am na fi waaye jàmm ji nag lañu bëgg yàlla gën ñu ko saxalal gën ñu ko di sàmmal di nuyu sa technicien di nuyu ñëpp mm, waa carte grise si si kii bi lañ bokk carte grise waaw mm. ñooñu lañ la moom carte grise permis boo ko déggee mooy mooy mooy ak permis bi permis boo ko déggee mooy kii dawal waaw carte grise boo ko déggee mooy oto bi. ah da ngeen am seen jargon daal. waaw transporteur dañoo am seen jargon. comme journaliste ñoomee seen jargon avocat et ainsi de suite. voilà ñu daal permis de conduire. mooy ñan. mooy oto bi mooy oto bi permis de conduire mooy. mooy conducteur bi. <laughs> cey góor voilà mu ngi noonu ñu kontaan bu baax euh, ci sa disponibilité euh, tey ji euh, seen syndicat union des routiers du Sénégal lan lañ si mën a dégg exactement. waa union des rues du Sénégal da ngeen a changé gën a yaatal. voilà voilà mhm. xam nga bu njëkkoon na STRS la tuddoon. Mhm. léegi <clears throat> ñu dañoo bokk ci ay organisation internationale. Mhm. bu mel ni CESCRAO la confédération des communautés routières de la de bi nga xam ne à bag bu euh, ci CEDEAO ak xaatam moo ko moo ko taxawaloon mooy organisation syndicale. bu bu bu bu routier yi. comme ni yeneen kuréel amee ci enseignants yeeg yëpp ci biir CEDEAO mm-hmm. mm-hmm. ñu defar ko moom moo ko initié woon ba léegi sax siège bi mu ngi Abidjan mm-hmm. man ma bokk ci vice président yi euh, ñu demandé une union de toutes les catégories ñu bokkaat nag ci beneen euh, fédération internationale des ouvriers du transport muy kuréel boo xam ne bi adduna bi yëpp ñoo ci bokk région Afrique centrale Afrique Afrique de l'Ouest euh, région Asie arabe Europe Amérique àdduna bi yëpp ñoo bokk ci organisation boobu muy la fédération internationale des ouvriers du transport. Mm-hmm. yàlla def leen ma bokk ci comité directeur représentatif Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. ñooñu aussi demandé union des catégories. Mm-hmm. loolu waral en ci congrès bi ñu def ñu topp ndigal def union des catégories maanaam boo déggee catégorie muy poids léger bi. c'est une catégorie poids lourd c'est une catégorie transport en commun c'est une catégorie. Mm-hmm. oto bu ndaw catégorie la oto bu mag catégorie la oto transport en commun catégorie la oto transport marchandise catégorie la. Mm-hmm. donc ñu jël lépp def ko une union des catégories. Mm-hmm. union des routiers. du Sénégal nga xam ne léegi. loo soxla rek ma ngi fi. waaw si la gën a yaatu. waaw yaatu na. gars si la euh, gën a mën a gis seen bopp a ci bokk ci lañ gën a jaxasoo. xam ne léegi euh, man carapide mhm. bi faalewu ma bi camion bi faalewu ma que léegi ñoo bokk benn mhm. union des forces nga xam ne bu ñu yëkkatandoo ñoom ñoo yëkkatandoo bu ñu tegandoo ñoo tegandoo mhm. c'est ça jargon union des routiers du Sénégal URS ñu bokk ci centrale bu ñuy wax euh, synthèse doo ma mu moo di gërë ko d'accord waaw euh, tey jii Gora Khouma euh, temps yi dafa mel ni da ngeen xaw a xaw a seral de lu ko waral góor a xumma rek ak syndicalisme yëngu-yëngal waaw seral xam ma xam nga xam na peut-être yow yaa xam euh, seral bi ba ba ba ba tàngal bi mm. mais lenn lu nekk lu ñu ci jot rek lu war a def dañuy toog def ko ndax euh, syndicat moom boo demee ba bàyyi xeex rek boo ko defatoo syndicat mm-hmm. parce que loolu dong lañ la doyee doye wuñ la ci sa diggante yaag suñu borom mm-hmm. ñi ñi appelé ci sa res soxlawuñ ma man mii seen seen seen diggante seen ëllëg ëllëg ëllëg mm-hmm. soxlawuñ ma fa mais ci wàllu àdduna bi wàllu syndicat dong lañ ma doyee lañ ma doyee leneen mhm. léegi nag kuy wax wax bu fekkee wax lañ la fale mhm. boo noppee waaw ñu ne waaw lu xew mais góor ko wax lañ ko xamee waaw mais déglu bu dee jëf lañ la lañ la fale mhm. boo jëfatul soxla wuñ la waa loolu lépp nag du yow yaay jëfal sa bopp du yaay waxal sa bopp njaboot gi ñoo lay jëf loo nga jëf njaboot gi ñoo lay wax loo nga wax nga wax da saay bu lu yuuxu jotee ñu war a def tey dañuy def benn préavis de bu ñu waree yëglu dugg ci biro yi waxtaan waxtaan bu ju buy am ay yaakaar dañuy toog di am yaakaar. Mm-hmm. mais bu ñu ba gis ne yaakaar kat amatul li ñu yoon sant mooy yëglu. Mm-hmm. par écrit. préavis de grève préavis de grève. Mm-hmm. ak ñi ñu ko siqal bu juree njëriñ baax bu juree njëriñ nag ñu soog a def ñi nga ñi ñi ñi ànd ak yow ñoo la koy sant. ginnaaw buñ muñee bu seen muñ koy jeex dañ naan la hee nañ taxaw bu defee yow nga porté nag combat boobu mais tant que egg wuñ foofu. doo ñëw rek ci studio Ndeye da daal ne bu subaa dañuy geraw xam nga bu ko regee day mel ni xamutu nga def ba am doxatootu ci ndigal mm-hmm, mm-hmm. da bàyyi bañ def loola mm-hmm. ndax bu ñu la def loola boo defee rek mu réussir kon instant amoo leen jafe-jafe yi ah, ah si si ah gars yi njaboot gi waxuñ góoraxuma yëngul yënga la déedéet góoraxuma ne tekk boo déedéet njaboot gi ne tekk kon kay yéen amatoo leen problème déedéet non faj na seen aajo tout est rose pour nous kon lan mooy seen problème. Ah, non boo déggee ma dama ne la. Hmm. dañoo jigéen ci grève. waaw boo xam ne bii sax du union du Sénégal rek. Hmm. mais cadre la woon boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko bokkoon. mais tëriwul avant cadre bi union dafa doon dafa doon xeex. Hmm. union ba cadre ba jeex na kenn ku ne sa syndicat de base. di xeexal mais dama ne la boo dégg ma wax loolu ñi ngi dox. loolu ñu amoon. ñi ciy dox pour que wane na kat gisuñu lu ñu xam. gisuñu lu ñu xam gisuñu xam am na xam bu ñu fa egsee. ngeen fa egsee bu état bi réagirul. dañu daal di dañu daal di dañu dañu defoon mais fi nekk nii waaw ndigal yi nekk nii ñi ngi ciy dox parce que gis nañu bari yoo xam ne amoon nañ ko ay acquis mhm. mi ngi deñ état mooy fonctionné noonu lu leen état joxoon waaw mi ngi deñ xam nga état moom moo amul sérieux mhm. ak bu mënti doon nag état amul sérieux amul ngor bu mënti doon nag parce que lépp loo xam ne jafe-jafe la teg ci kawam mhm. loo ko teg mun a waaw mais bu jafe-jafe bu teggee ko ci kawam rek mu baadoo la waat mel na du woon moom loolu mooy fonctionnement état léegi tey jii góor xuma lan mooy seeni jafe-jafe bari na lool sax. bari na bari na xaw ma limal ñu si yu xaw a bari. ñu ñu xool quatre wala cinq jafe-jafe. xam nga xam nga képp koo xam ne man catégorie yëpp laay waxal. Mhm. suñu liggéey bi ñu liggéey nii bu dee ci wàllu transport de passager bi. Mhm. moo xam taxi la moo xam njëge la moo xam bus la. Mhm. képp koo xam ne da ngay yeb oto da ngay yeb client rek di ko di ko encaissé. muy transport de passager. boo xoolee actuellement nii loolu dañ a nu ñeneen ñoo ñëw ko ci seen i loxo. ñu ñoo xam ne ay oto yoo xam ne yi amuñu benn autorisation bu def ko ak ay moto yu koy def amuñu benn autorisation di ko def. Mhm. ñu loolu ñu doon def di ci laaj paas am na beneen catégorie boo xam ne bii taxaw na di ko def te amuñu ndigal police amuñu ndigal gendarme amuñu ndigal état amuñu ndigal kenn seen doole rek lañ teg. ñeneen ñi di ko xool ka war a gaynde ñeneen ñi di ko wax ay kalandoo ñeneen ñi di ko wax ay yakarta ñeneen ñi di ko wax lu kenn xamul ñoo ñëpp amul kenn ku ci am autorisation def transport. te ba léegi boo xoolee léegi. ñoom ñoo ëpp léegi ñi amul droit ñoo ëpp léegi sax ñi am droit. ñi am droit. ku ne gis na ko. Mm-hmm. loolu mooy wàllu transport de passagers yi. Mm-hmm. transport lourd yi. Mm-hmm. état du ci moom jël. non balaa ngaa ñëw si lourd yi yéen naka ngeen gisee euh, cag-cag yi si dëkk bi surtout à Dakar. moo jaaduwul. moo jaaduwul lu ñu war a lu ñu war a liggéey. taximaan moom loolu la ñuy kaas. la ma dama la waaw. dama ne la yow pour yow est-ce que war na am cak-cak wala. déedéet dama la bépp oto boo xam ne bii. Mhm. xam nga maa tuddul taxi tudd ma dama ne bépp oto boo xam ne mhm. yaa ngi yëpp nit di ko laaj paas. Mhm. xam nga kon matale na. waaw liggéey liggéey am na ñeneen ñoo xam ne ñi amuñu ci droit. te ñu ngi koy def. ñëw nungu ko ci yow ba pare état di xool ba état sax jàppale leen ñoom ca la boo waxee ñu ne ay jeunes lañu. waaw foog ñu jàppale leen ñu liggéey. ñoom tamit non non non attends déedéet. liggéey sàcc liggéey la est-ce jàppale nañ ci kenn pour mu sàcc mais si naka la nekkee sàcc laa bëgg nga expliquer ma góor. loo amul droit di ko def. waaw lan la. loo xam ne amul droit waaw. man mu ngi léegi sama bati mbaa fii day def ay studio ne damay def rajo. Mhm. aw ma licence aw ma agrément aw ma dara. ah. Mhm. jël ay nit rek na la ñuy ay journalistes yi ñoo xam ne demuñu sës demuñu fenn. Mhm. pourtant maa ngi communiquer nit ñi est-ce na. Mhm. non légalul. bu rek lu may def sàcc. Mhm. sàcc ma. bien sûr. voilà mooy ki nga xam ne nag def loo xam sax yoon war na dal sa kaw. voilà yoon dal sa kaw da ngaa da ngaa def lu jaaduwul. moo tax dama ne la ki yore deux roues mbaa nga naa la ko. donc yow deux yi ngay waxal. ak euh, clando yi. waaw. ak ñan. waaw képp kuy exercer rek. waaw lool laa dama ne la. waaw xam nga képp kuy exercer transport bi ñu doon def. Mhm. nga koy def yow. Mhm. te amoo ci ndigal. Mhm. dañuy jàpp ne yow mii yaa ngi hors la loi. léegi état di leen seetaan. waaw yàq liggéey bi. xam nga état moom. xoolul li mu war a xool. moom mi ngi xool ci popularité. mbooloo daal la ñuy def mais bu dul yoon sax. parce que xam ne bu ko teree jeunes yi mere. voilà mu bàyyi leen ñu def waaw bu bu ko terewul jeunes tamit jeunes ñi ngi am ñi ñi dañoo war a liggéey. mais loolu ñuy liggéey. na état am fulla ak fayda bu mu régulariser am utal leen reconnaissance. Mm-hmm. régulariser voilà dama ne bu ko état bu leen bëggee yërëm. Mm-hmm. la ñuy def bu jàppee ne jaadu na da leen war a utal reconnaissance. wane na kat ñii. Mm-hmm. maa leen jox ndigal bu ko regee dootuñu nekkati leneen lu ñu mën tudd lu acteurs yi légal la c'est des acteurs légaux. bu ko regee amatul waxati mais fekkee na ne xam nañ ne lii jaaduwut mu bàyyi ko ca ñoom defuñu dara mais état moo def loolu. te marché transport bi ñoo ñoo ko nangu fi nekk nii. Mm. ndax yow foo doon fa euh, la ñuy laaj parce que dara fekku leen ci. Mm. bu fay état amul amul. ndax bu lay fayeeku mm. da lay fayeeku fekk nga légal mu la fayeeku mais lépp li ngay exercer sa doo jaay yàmba état di la fay koy doo sàcc état di la fay ko ay boo ko déggee la ngay def moo jaadu yéen a jaar yoon yéen ay fay taxe ñu leen nangu nangu ñëw nangu seen place ba pare du ñu fay taxe jaaru ñoom bépp liggéey daal bu jaar yoon fixe taxaw na mais bépp liggéey boo xam ne jaarul yoon état mun laa fi jox la réclamer ay fixe parce que fixe mooy da laa reconnaître pare mhm. nga am loo ko war a jox nag te joxoo ko ko bu ko defee foofu la koy réclamer mais li nga xam ne état da ko war a tere du loo ay fixe léegi ci luur yi loo bëggoon wax luur yi luur yi xam nga xam transport mhm. luur dañ ko libéraliser wane ne état dafa seen yónni ko mhm. xam ne yi seen vocation mooy produire nga gis léegi kuy produire ba pare dem utaat sa parc sa parc. Mhm. di def transport comme ñëpp. te ñëw ñu ngay jël sax di ay conducteur bu doon sax dañoo leen defal li li war a defal sax. Mhm. ñu mën a wax. Mhm. mais dañoo di exploiter. yow yaa ñaari casquette da ngay produire transport di exploiter ñoo ñu ngay jël. léegi nag ki xam ne mooy transporteur bi rek nga xam ne moom yoonam nekkul ci lu dul. def transport kese. gisutul gisutul marchandise bu mu yeb. baa bu koy bu marchandise am boobu muy yëpp dañ koy exploité maanaam fu ñu ko waroon tonne bi tonne ñu ko waroon fay 2 millions ñu bëgg kaa bu ko bàyyee du am feneen fu mu jël dictature boobu nag te état ñu wax ko waxaat ko waxaat ko wax na ko kaay yoon waa ngi kaay transfert ñu ko. Mhm. kaay nga organiser mu toog di ñu xool. Mhm, loolu mooy mu jël marché boobu tamit tuxu na suñu loxo. ñu ngi tuxu suñu loxo. Mhm. boo fekkee nag ñun dañoo nar a ñàkk transport de passager bi. ñ transport lourd. léegi kay problème am na. nan ak ban jafe-jafe ngeen amaat góora waaw loolu bu loolu jàllee nag waaw xam nga travail bu mënti doon mhm. dangaa war a gis sa bopp ci biir suba nga war a calculer maanaam boo feebaree mhm. am na kër gu la war a mën a ba pare déclaration IPRES kër du sécurité sociale muy volet ministère du travail encadrement bi mu war a def te les travailleurs routiers mhm. encadrement boobu ko ministère du on n'a pas euh, Euh, la seule tutelle muy ministère transport. Mhm. on a une autre tutelle. Mhm. muy ministère du travail. Mhm. ministère du travail c'est des travailleurs ministère du travail lañ bokk war na leen mën a encadrer ba nga xam ne tey jii chauffeur dinañ xam heure bu ñuy xëy xam heure bu ñuy wàcc am na âge boo xam boo fa eggee nga am sa retraite am sa pension dem toogi. loolu kat dina bokk ci li dalal xel te loolu amul. te loolu lépp nag nit ki mënu ko defal boppam mais mais gouvernement bi muy ministère du moo benn jouer boo xam ne bi da war a jouer. mu neex góor xuma mu naqari góor xuma mhm. mu neex keneen ak mu nag ñu ko naqari ñu fexe ba acteur bi ñu formaliser kenn ku nekk li nga war a doon nga doon ko li nga war a am nga am ko mu neex la ak mu naqari la buy neex góor xuma dañ ko kawar a tegloo mhm. bu naqari dañ ko kawar a tegloo bu keneen noonu keneen noonu ba acteur yëpp kenn ku nekk ki moom otam di gis li mu war a gis mhm. kii daaw tamit li mu a gis loolu moom amul c'est des problèmes kooku bokk na ci problème yi beneen bi mooy waaw ay aire ñu ngi koy réclamer aire de repos du pour transport transport passager sax puisque boo génnee fii mënuloo daw yenn distance yi te obligé wuñ la pour nga noppalu mhm. te booy noppalu day fekk ñu aménager la ay heure de repos heure mhm. de fi mu am fi nekk nii rek mhm. ci autoroute Ila Touba bi donc la am ah. kese te loolu Touba bi ñoo ko fa def mais route nationale yi amul fenn fu am heure de repos fii ba Rosso ak lu romb Rosso amul fenn fooy noppaloo nga jógee fii dem fii ba Bakel amul fenn fooy noppaloo nga dem jóge fii ba Moussala amul fooy noppaloo nga dem fii jóge fii ba Guinée Bissau baa nga dem Guinée Conakry baa nga dem Gambie amul fenn fooy noppaloo moom daal xàlla la ne da dem rek amul fooy taw noppaloo te ñun wax nañ ba sànn na leen non seulement dañu war a ay parking yu oto yi di war a mën a gaare parking foofu mm. ak aire de repos yoo xam ne yi oto bu am na distance boo xam ne bu fa egsee muy transport de passager muy transport lourd war a mën a wàcc oto bi war a mën a noppalu yow chauffeur bi nga war a mën a noppalu ba temps bi nga xam ne war nga kaw war a reprendre sa service nga reprendre service mais amul te yooyu c'est des

génne nañu école sàngam am nañu formation sàngam am ñu liggéey am mais doo ko dégg chauffeur chauffeur moom mhm. mooy utal boppam liggéey transporteur mooy utal boppam liggéey mhm. loolu bu ko état amee ci ñun tey ñu nekk ay junni junni ji nit réclame doo gi dégg kenn ku takk moto ba xam nga daan ñun ñun régime ak régime bu fi mën sa jaar mhm. déggoo benn acteur routier bu koy réclamer emploi waaw kooku bu la ko mayee chance boobu doo ko exploité nga xam ne kii lëjëlul a yàgg Macky Macky lu ñu bëgg du ñu rek. li ngeen kaas kat góor a dafa bari est-ce que li ngeen bëgg yëpp Macky mën na ko def. Macky lu ci yoonam ci loolu daa moom daa moom ñaar dërëm ci dëkk bi. <laughs> moom na koo def na koo def kay ñaari dërëm yu sant Sall soxla wuñ ko ci moom. Mhm. luñ ko soxla moom moo soxla woon réew mi. état bi bàyyi waaw rek mhm. moom moo soxla woon réew mi am ko fi nekkoon mu ne man bu ma ñëwee ngeen bëgg yëpp man dinaa ko def néew ñu ko kaay ñu fal la boo ñëwee réglé ñu ko moo ne bu ma falee ma réglé leen ko. loolu waxi politicien la. waaw kon moo tax ma toog fii di ko réclamer xam nga ne ko ne est ce que mën na ko. Mhm. góor wax ca amul kenn kuy campagne ne bu ma toogee. Mhm. li ngeen bëgg mënuma ko. waaw. danga naa li li journaliste soxla. bu ma toogee naan ko defal li routier yi soxla naan ko defal li béykat yi soxla naan ko defal li santé bëgg naan noonu la bëggee wax léegi nag yow da war a xool li nga man mhm. la yéen euh, maanaam Macky la mu leen digoon Euh, ca ba muy laaj réew mi. Hmm. ba mu toogee si bopp réew mi ba léegi. Euh, léegi mat na fukki at. yu hmm. teg hmm. lan la si def si li mu leen diggoon yéen chauffeur si. am na tali yu muy defar de. mais tali yi muy defar dafa am ma wax dañ la ko nañ ko corriger depuis sont ba léegi dañoo war a jóge ci tali bu benn rek voie dem benn voie ñëw maanaam xàll wuy dem ak xàll wu ñëw muy route croisement. maanaam ñu yaatal tali. dañ koy yaatal def ko trois voies. trois voies ou bien ñu def ko deux fois deux voies. ñaari voies jàll ale. Mm-hmm. ñaari voies la ñaari xaal la ñëw le tour. Mm-hmm. foofu la Sénégal toll. Mm-hmm. bu nee ba mënul lool sax bu def trois voies maanaam yoon woo xam ne day am ñetti xaal la. àndandoo ko. ngay dem boo bëggee double double ci sens bu mënti doon mais deux deux deux la ale bi ngay nekkee. mais mais côté yooyu Macky mi ngi siy góorgóorlu. non déggoo dañu ne. am na tali yu mu defar. mais tali defar. da kaa bàyyi te deux voies dafay indi ay accident ndax ñëpp mënuñoo bokk ci benn voie kese yem ca. Mm-hmm. dafa am possibilité foo xam ne boo waree romb oto da nga war a romb maanaam trois voies. Mm-hmm. kon bu defee tali tamit tamit nekk deux voies ba léegi am na côté bu mu réglé wu moo gën tali bu bon mais am na beneen danger bu mu présenté encore réew mi moo toll foo xam fii dimension na sept mètres yooyu ba léegi. Mm-hmm. ku nekk xam na ne Sénégal daf ci évoluer kon tali dañoo war a évoluer mais du autoroute à péage rek moo war évoluer déedéet route nationale dañoo war a c'est des routes modernes. waaw centre centre bi ñuy wax. waaw ko fii da ko fay fekk. mais dañ ne woon bu eggee dañ ko multiplier dans toutes les régions. Mhm. ba léegi benn centre fi nekk. muy système visuel fi yéen yëpp système visuel la. Mhm. système visuel maanaam centre bi da ngay yëg machine bi mooy xool anomalie bu oto bi am. Mhm. mu signalé la ko mu mel ni da ngay scanner. feebar kat bi ñu ki feebar bu ñëwee ñëw scanner ka wol na ko feebar nga nangam fag na nangam fan nga nangam. au bilan mais bu loolu benn centre depuis bañ ko créé ba léegi. te chaque région am na subdivision des transports. Mhm. fu ñuy passé permi yi fu ñuy passé visite technique ba léegi amuñ ko kon kon manque de volonté politique am na ci am na loo xam ne du sa xaalis dañ laa wutal budget. Mhm. budget bi ñu lay woote nga jaar assemblée nationale ministère de la santé dafa ñëw ñu ne ko ci wàllu wér-gu-yaram pour nga mën a matale il faut ñu jox la ñaar dërëm yi. Mhm. mais que transport dañ ne la pour nga mën a matale. il faut ñu jox la ñaar dërëm yi ñaar dërëm yooyu la bu la ko joxee nag seeni borom am nañ droit ne taxaw la la defal ko ndax ministère par ministère hmm. da jaar assemblée ñu defal la sa budget ñuy suivre budget yi kon budget yooyu kon yow daal jàpp nga ni góor xuma budget yi ñuy voté assemblée pour du pour euh, lekk euh, yegsiwul si yéen yëgoo leen non dafa am lu ñu ciy def dafa am lu ñu def mais la la li ñu soxla dëgg-dëgg mhm. dafa amagul kon mais tali yi ko defaree baaxul. dañ ko war a yokk ak yu bari yoo xam ne amuñu ko am na yoo ba léegi ñu ngi ci ay piste. Mhm. ñu ngi ci ay piste te ay nit dafa dëkk. ak tali yu yàqu yi. waaw mën ngaa gis tali tali boo xam ne bii ci Sénégal doo ngay gis. Mhm. kese. mais réew yi nga xam ne dañuy daw suba ngoon la xanaa kon amuñu tali pourtant boo demee ci réew yooyu dañuy daw suba ngoon te boo demee ay tali intact lañu yore. Mhm. fii ci nag rawatina la banlieue bu nawet jotee. tali amutul bu nawet passé ñu daal di ki poudre rat mhm. poudre poudre poudre mhm. bu nawet bi jowaatee mu yàqu loolu vraiment c'est pas c'est la mauvaise qualité te nit ñi dañoo war a dépassé foofu te loolu lépp xaalis la mhm. yokk seen côté essence bi lañ yokk te xam xam naa ne dañuy raamtal rek dañuy raamtal waaw dañuy raamtal. mais essence bi yokk impacté wul seen liggéey. si si am na oto yoo xam ne essence la ñuy daw. am na bu bari oto yoo léegi a ngeen def kon. pour génn si bokk na ci li li li ma la wax ne la. Mm-hmm. ñi ngi koy dox ci couloir yi. Mm-hmm. essence bi yokk. essence bu yokk. Mm-hmm. naqar woo bokk na ci li ñuy li ñuy li ñuy wax ak poste yi nga xam ne tey jii gerte wala passé président Macky waxoon na ko. def ba def ab décret te beneen décret ñëwul de. wax naa ko ne man damay am gàcce léeg-léeg xam nga tax may am gàcce. damay yaakaar autorité. amul benn signature amul benn kaddu bu gën a kaay bu Macky Sall ci jamono yi ñu nekk nii amul. yow nga nekk ndawal buur. Mhm. di garanti kaddu président. Mhm. ca signature ba ca texte ba ca lu ma di doon rawatina un décret. mun a décret bi lii laa wax man doon naa comprendre. Mhm. président bind décret na trois postes de contrôle. ñoom ñi nga xam ne ñoo yore sécurité. ñu gis ne lii kat baaxut président signé ko pare. ñoom nañ dem seeti président comme ñun dañoo demoon seeti président ñun acteurs ba mu defal ñu trois postes de contrôle ci accès bu ma doon. ñoom lii baaxul ñoom ñoo war delluwaat ci président. Mhm. na ko bii nga defal acteur routier yi de baaxul. bu defee président ko def defaat benn modification boo ko reggee man mën naa ko dégg mais bi fi nekkoon rek moo fi nekk. ba pare ñoom force de l'ordre di muy police muy gendarme dañ koy violé ndax Macky Sall li mu bind teg ko leen ñëwaatul leneen ñëwaatul kon ko def leneen rek damaa jàpp ne da ngaa violé kaddu président de la république. Mhm. moom mooy chef suprême des armées. dama ne bu bindee xam yow mii di technicien bi nga xam ne yaa sécurité xam nga ne lii baaxut bul utal sa pexee bopp da nga war delloo ba ci moom mu corriger lim bindoon lim bindoon bu defee nga mën a am liggéey parce que man li ma xam ci gendarme a liggéey hmm. li ma xam ci police ci këyit la war a liggéey li xam ci eaux et forêts xam ci douane ci këyit la war a liggéey mais président wax lii ñoom ñu wàññeeku def leneen taxaw ci tali bi foo xam ne bokku ci poste contrôle di contrôler ngi sonn di joxe gauche droite waaw xam nga noppal nañ leen parce que grève bu métti amoon na fi waaw loolu ne la ndax grève bu métti boobu grève boobu moo indiwoon trois postes de contrôle xam nga nit ku nekk dafa am looy xam ak lu dul xam mm-hmm. mais ndawal buur yi am nañu ay information yoo xam ne yi mm-hmm. du góor xuma lañ koy livré mm-hmm. du yow ndëkkumba lañ koy livré ñoom ñoo xamal sa bopp mais bu ñu ko gisee ne lii kat ay la yëwan mënul ànd ak insécurité que mënul ànd ak trois postes de contrôle yi dama ne ñun niñ demee woon ba am lii ñoom tamit noonu la war a demee ci seen kilifa muy président de la république na ko lii kat à corriger bu demee président na ah de contrôle day mhm. mais aménagé naa ko nii ak nii ak nii mhm. man bu ko reggee man damay adhéré ci loolu parce que dama xam ne ndawal buur yi président moo ko aménagé moo changé moo mu def mais dama ne li fi nekkoon ba fii may wax ak yow tey ci samedi jii mm. trois signature euh, décret président moo fi lan la benn ndawal buur taxaw ci ci foo xam ne fii. Mhm. président ne bu fa kenn taxaw. Mhm. yow nga taxaw di contrôler. di contrôler mais c'est honte. ñu ngi laaj xaalis ba léegi. yéen a ngi ñooy ànd laa la wax dama ne dañ na xam nga lu ñuy wax trois dañ bu taxaw. nga ñëw taxaw fa yow. Mhm. nga di gendarme ngay policier ngay douanier. nga ñëw taxaw. nga ñëw taxaw fa léegi loo fa def jubut ndax sa kilifa moo na la bu fa taxaw ba pare. yow nga ñëw taxaw fa kon li ngay contrôlé mais mais tamit yéen nag. Euh, xanaa dama yëngale rek li ngay contrôlé. di xool ku ku nekkul ci yoon. yow yaa jëkk jalgati yow sa bopp. Hmm. yow di policier di gendarme taxaw foo xam ne waroo faa taxaw. taxaw loo fa def c'est pas normal c'est pas normal décret du caaxaan décret du caaxaan te dama ne moom mooy chef suprême des armées. Hmm. dama ne man li ma d'accord daal beneen këyit bu génn ñu ne ah président waxoon na trois postes de contrôle de. Hmm. mais am na beneen këyit bu génnaat modifié na loolu. boo ko regee man du ma ci am lu may wax la wax. ndax ànd ma ànduma ci. mais dama ne ba fii ma taxaw di wax nii. décret bi moo fi nekk beneen décret ñëwut beneen dëkk dëkk ñëwul du du du li may wax ne ñëpp a ngay dégg. Mhm. police nga may dégg gendarmerie nga may dégg beneen décret ñëwul ba pare ñu xotti ko sànni ba pare ñu ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy sécurité réew mi. Mhm. xotti kë décret ba lañ def sànni ci àll ba ndax policier ak gendarmerie ñu kaw tali neex non boo déggee ma def lu leen neex ñi ngi taxaw ko tali bi di sécuriser di di di contrôler contrôler mooy pasel xool li nekk ci oto bi yeeg. ma xool stop yeeg ma xool hmm. pneu yeeg ma xool sa dafa am place fu ñu ko defee nag dañ ne hmm. trois postes contrôle poste bu mënti doon nag day am police am gendarmerie am douane ñoom ñëpp la famille contrôle ñoo fay bokk daje bi dajee bu oto bi dajee bu ñëwee foofu ñoom ñu kenn ku nekk def sa liggéey hmm. ba nga xam ne bu oto bi mënee dem waree dem bàyyi ko mu dem bu dem da ko téye ndax loolu mooy sécuriser dëkk bi mais ñun d'accord nañ ci loola oto bi mën nga xam ne sama indee sama oto yóbbu ko jam ñaa gi nga mooy premier poste contrôle bi mhm. sama oto lañ war a nekk nekku ci ñu jël sama oto téye dama ci ànd que poste contrôle la mhm. mais fu dul jam ñaajo waruñu ma waruñu ma sax xool kon alkaati ba fa taxaw ba gendarme ba fa taxaw ba douanier boo taxaw da kay def ci teeg ba kanam tegu ko ci len len len mais mais góoru tontoo gooma de yéen a ngi joxe ba léegi wala joxeetu leen waaw du ñooy ànd la xaalis du loolu laax dama ne waaw yéen a ngi joxe ba ñoo nooy def ba joxe doo joxe waaye yéen est que tamit chauffeur si yéen yéen yéen maanaam corruption bi ngeen di kaas est-ce que yéen nekkul ni da ngeen koo tàmm ba mu bokk si yéen yéen tamit. déedéet yow déggu dama ne. waaw xam nga fan nga leen kii warul joxe. fi nga xamante ji état nee fii poste de contrôle la. waaw dama ne li ñu soxla ñun. Mhm. oto bu fu mënti ñëw ak catégorie boo mën a yore. boo nekkee en règle nañ la bàyyi nga dem boo nekkul en règle nañ la sanctionné. selon infraction ba nga def ba dili ba nga def. Mm. man loolu ko rek dama ne déggu dama ne waxuma ne bari naa bariwul de dama moo tax ñu leen di noggatu rek di leen. dama ne poste bi nga xam ne day ñëw pii mm-hmm. ma sama oto bu ma mën a yore. dama ne bu ma nekkee en règle nañ ma bàyyi ma jàll bu ma nekkul en règle. nañ ma l' bi ma def. man loolu d' accord naa ci te moom laa yóbbaale géew ñëpp mais demee na xam fi nga xam ne du poste de contrôle. d' accord ku fa <laughs> da nga yow yaa jàpp ne yow kii jibul yow yaa gën a jubali yow mi ne waa ji jubul dama koy waxoon ndax jub nam jubul yow yaa gën a jubali yow yow yaa gën a jubali parce que amoo benn ndigal pour taxaw fa mais parfois góor xuma oto oto yi daw si si si tali bi nii ah, yu bëri di daw di roomu policier di dem mais da ngay wax ñii fan la ñu defee visite technique jaaxal ñu bëri parce que da ngay wax xam ni oto normalement oto bi waratul daw waratul daw saxte mi ngi daw ci kaw tali bi di romb policier yi di raw euh, romb gendarme yi waaw da xam nga dama la sànq waaw dama anticiper dama ne la mm-hmm. Séné Dakar gii du Sénégal gi yëpp Dakar donc moo fi am centre visite technique moderne mm-hmm. nga xam ne yow oto bu ñëwee machine mooy xool ndax am nga problème ou bien amoo problème mm-hmm. mais boo rombee Dakar laa la wa ci treize régions yëpp système la système mooy lan yow kat yaay xool xool nii waaw. xool nii ndax baax na baaxut léeg-léeg nga na baaxut fekk baax na léeg-léeg nga na baax na fekk baaxut nga jox ko këyit naka baax na. selon yow moom tamit ça pose problème. foo laa loolu laa la wax léegi dama ne. léegi problème mu affaire visite technique bi yéen lan ngeen di suggérer. yéen transporteurs yi. xam nga Dakar rek wuur fee nekk. waaw. ah di def contrôle mu mu mel ne Dakar rek. oto Dakar rek moo war a baax. moo war a warul baax warul baax. ñë Sénégal gi tous nous sommes tous égaux. mais man Dakar gii laa loo xam ne oto yoo xam ñu ngi fiy. non ñoo fiy daw mais amuñu immatriculation amuñu amuñu visite technique Dakar de. Mhm. déedéet amuñu visite technique Dakar de ci yeneen région lañ bokk yeneen région lañ leen lañ leen defal seen visite technique. ba pare ñu ñëw Dakar foofu la ñuy basé voilà. parce que foofu système visuel. voilà voilà xool nii xool kii waaw. xam nga oto bi nekk ci telle région am fa visite technique. Mm. visuel ñëw Dakar di daw. mais bu ko méngalee ak oto bi nga xamante ji ab deekaa la boo xam ne bii système moderne moo ko yal ñoom ñaar ñëpp am nañu visite technique. mais normalement góora bu fekkente ni oto bi yow yow danga nga koy xoore xam ni lii waratul daw. waaw waxuma ay visite technique yow da nga koy xool xam ni oto bi waratul daw. waaw dañ ko war a yóbbu tas ko def ko feeraay. waaw mais muy daw fii di romb police ak gendarmerie. est-ce que yaa ko jox visite technique. waaw est man mi maa ko jox visite technique. donc ñoom seen seen kii bi yëpp loolu seen yoo nekku si dama dañ leen defal contrôle assurance da ngay xool cours de validité bi hmm. visite technique da xool cours de validité bi ndax mu ngi doxam doxut dama ne na ko yow mii oto bi a dem hmm. am nga six mois ba am nga un an xam ne am nga droit dem mais kooku day dem day dem système moderne moo war a valable fépp ou bien ñu dindi Dakar gi sax système moderne bi def ko système visuel ndax ñëpp a tolloo déca bi rek la ñuy. léegi da ngeen bëgg euh, région bu nekk am fu ñuy. Euh, système moderne ou bien ñu annuler Dakar def ko système visuel mënoo yore tam déca boo bëggee visite technique mu jafe la lool lool lool lool lool lool nga yore beneen beneen plaque loolu doo ci fekk. Mhm. te ñëpp tolloo ci Sénégal te gouvernement bi damay xëy accident damay xëy li damay xëy li ñaata at jéemu ci tus jéemu ci dara bi ci des. renouvellement parquet bi. waaw su la doon ñëw sax renouvellement parquet xam nga boo déggee. déjà am na am benn waay dama wax mu la jëndee mhm. bi ñaari dërëm ndax gouvernement amul droit di ñu jëndalee oto. Mhm. il faut que nit ñi xam amul droit di ñu jënd oto gouvernement bu ma doon ak réew bu ma doon garantie lay joxe. waaw naka la demee expliquer ñu xam renouvellement banque banque renouvellement. ne bii da topp ba am banque boo ko jox. Mhm. banque boo xam ne waxtaan nga ak ba ba confier ko ko mhm. yow état nag yow ngay couvrir yow yaa koy garanté war nag sama njaboot gi ma la dénk dañuy la fay mhm. banque ba nag dem jëndi xaalis euh, otam banque bay jënd mais mhm. lu muy jox ñaar dërëm mais moo garanti banque boobu nag moo ko jox courage moo ko jox moo ko jox sécurisation pour que njaboot gi mu jox leen léegi nag man bu ma banque bi ma sama sama tata baa mu jox ma sama damaa benn contrat bu may signé ak ak banque boobu weeru wu dee wu nekk la ma siq ma moom ma di ko jox ba saa ba sama oto ma tee moom moom ko. Hmm. saa bu ma ko respecté wul mu nangu oto bi. mu nangu oto bi jox ko keneen. voilà mais ñun loolu lañ soxla ñun. mais da ngay wax nit ñi dañuy naan transporteur lañ bëgg mënu nekk ñun sa Macky Sall amul xaalis muy jëlee jëlee oto kon Macky Sall mën a jël kenn oto est ce da di yoon sax ban droit la Macky Sall di am di jëlale oto ñun. laaju ñu ko ñaari dërëm il faut que population xam ne. Hmm. ñun ñu réclamer. Euh, renouvellement parc automobile du kees lan ngeen lan ngeen soxla. garantie kese. mu defal leen garantie. kese def na garantie pour renouvellement ñu ngi renouveler tataay. waaw garantie la. mais xaalis bi xaalis ba oto yi jënd ñu koy tataay. waaw ñaar dërëm état ñoom ñaar dërëm demu si. ñu ngi commencé garanti la leen di defal. ñu jox leen ay oto ñu ngi leen commencé def renforcement di indi bees ci camion yi. waaw mais oto mi garantie kese la. mais acteurs yi ñooy fay ak banque mais banque yi bu ñu leen garantiwul duñ ko ñemeñ duñ ko ñemee ñoom ñoo xam ne ñu tey seen bopp jarax diggante banque ak état mais ñun banque yi la ñuy signanteel duñ mën a signanteeg état duñ bu ñoo signanteeg état banque la ñuy signal hmm. mais banque bay signal moo xam nu muy réglé ak diggante moom ak état mais loolu boo demee Mali boo demee Côte d'Ivoire boo demee fu mën doon ci àdduna oto ya ñuy yore dañ koy leb banque moo leen koy jox hmm. ñu traité ak banque loolu lañ soxla ak Sénégal mais nit ñi population boo waxee rek ñu mu ñii lañ bëgg mënul nekk ñoo jëli seen oto lañ jëli seen bopp oto non non non non non am réew doxewul noonu. Macky jëndul benn oto. du soxlawul ñaar dërëmam soxlawul ñaar dërëm parce que amu ko amu ko bu ñuy jël góor xam ma bëggee oto Macky Sall ma ko jël oto ma def transport loolu xel ko nangu sax mais ñun dañoo organiser. Hmm. ñun garanti rek lañ soxla. kese am oto yi ba garanti kay yomb na mais lan moo tax boobu ba léegi góor xuma car rapide yi mënul jóge fii Dakar. ay lenteur rek la. te tout le temps ngi wax dinañ fi jógee dinañ fi jógee waaw. commencé projet bi waaw. ba léegi 2005 ba léegi mu pare te yow sa ñaar dërëm demu ci sa ñaar dërëm demu de état hmm. ñaar dërëm demu ba léegi mënoo fexe ba accéléré ko nettoyer problème mu jeex mais doo doo comprendre daal doo mën a comprendre 2005 ba léegi am na oto yoo xam ne ba léegi ñu ngi fi renouveler bu ñu leen te seeni borom ñi ngi rayante pour ñu renouveler leen ñoom hmm. mais amuñu possibilité naka nga gisee yow euh, ministre Mansour Faye ah, seen seen seen ministre bi noo ko gisee yow. waa mi wax xam nga xam nga Mansour Faye waaw man dama ci doon wax ba yàgg bàyyi naa wax xam nga bu yàggee day mel ni da ngaa nit ki mm-hmm. te man du ma kenn mm-hmm. moom am na lu muy def ak lu mu defut comme ay moroomam mm-hmm. en tout lu bari loo xam ne li rôlam la bu mu war a def def ko ñun man man su fekkee man leen nag la gën a mere man arrêté bi mu def envoyé ko force de l'ordre ne génn leen génn leen ngeen taxaw ci tali bi force la jël arrêté Mansour fay waaw génn taxaw ci talibi bi nan dañuy contrôler ndax dañoo dañoo am ci Mansour Faye. contrôle bu spécial wala lan. contrôle rek contrôle routier. comme ça. mais est-ce que loolu c'est normal ban ministre moo ko ñemee def hmm, président Macky Sall def un décret lu tax ni décret président de la République. Hmm. yow ministre nga def beneen ci wetam na appliquer le sans bosse bàyyi bu président ban ministre moo ko ñemee koo ko def bu àllarba ñu dàq te Mansour def na ko. def na ko te mu ngi ministre ba léegi. te def na décret arrêté kon jox force de yi ñu def ko seen i poos na fi ñu taxaw Mansour Faye moo leen fi taxawloo buñ si bu ko defoon bu àllarba ñu dàq la président de la République def un décret. nga def beneen arrêté ministre def arrêté. ak arrêté ak décret dañoo àndul. décret mooy décret décret mooy chef suprême. Mm-hmm. décret mooy chef suprême boo ñëwee décret rek waxatuñu ay ay arrêté. Mm-hmm. mais Mansour Faye def na mais ndawal buur def na. ndax ndawal buur warul base wu ci Mansour Faye ndax Mansour Faye yilifu leen Macky Sall moo yilif képp ku takk der mm. Macky Sall mi yilif ñëpp takk der dafa def un décret man fay ma Mansour Faye def un un arrêté mm. joxe ay directive ko ñu appliqué boobu parce boobu moo na a arrangé est ko ko non ko mate santé <laughs> ci gémmiñ mm. da kaa war a ci papier parce que décret baa ngi ba léegi léegi c'est euh, injuste mi c'est un pays mhm. nekk dafa am loo war a dox. Mhm. décret daal moom bu xasee ba génn. waaw dëkk à mais mais maanaam Mansour Faye yow tey boo ko doon jox note loo koy jox. note waaw ah, parce que moom peut-être Macky moo la leen la leen jagleel. waaw moo tax dama ne. waaw bu dee bu dee ni ci 10 sur 10. waaw yow loo koy ban mooy mooy meilleure note. 10 sur 10. waaw man mën naa ko jox cinq cinq ah kon Mansour mu ngi góorgóorlu. lu mu góorgóorlu la. dix sur nga jox ko cinq. waaw am na moyenne passable. waaw mais mais dama ne. Hmm. mënu mu kaa jox zéro. Hmm. ndax lu zéro mooy ku deful dara. Hmm. mais man li ma la bu ko defoon ma defal ko dix. acteurs yi routier li ñu soxla bu ko defoon ñu defal ko dix da kaa defut. dafa am lu mu def du kon man am naa droit noter ko cinq. mu ah. góorgóorlu pour mu am dix. <laughs> waaw léegi projet BRT bi yow loo si xalaat exactement. non BRT pour Sénégal la. Mhm. BRT amul benn man ak sama morom bu bëgg war kaa rejeté. Mhm. yéen d'accord ngeen si. jàpp ngeen BRT pour Sénégal la. du pour acteurs routiers yi. Mhm. moyen de transport la bu ñu fi teg fii. pour que sénégalais yi la. mais du question ñun ñooñu ñoo leen waroon transporter rek. transporter wu leen ko ñu ne non bu mu fi amee. non bu mu fi dama ne. BRT pour population bi moog TER bee yem. pour population bi la est ñun ñoo am bi. déedéet ñun moomuñu population. maanaam nekk mën nga liggéey sa liggéey. te li ñu jox am na ci. Mm. ah BRT dina yàq. Ah, waaw parce que. Mm. yow yow mii. Mm, lan la a yàq bu taxawee waaw déedéet dama ne. loolu ku nekk xam ne BRT bu bu bu ñëwee dina wàññi lu bari bari ci secteur des transports. ku nekk dina ko xam mais du raison ci ñun pour ñu bañ ko. da ngeen xam ne àdduna tollu. jamono tollu voilà population bee moom dama ne population bi ñoo ko soxla. Mm-hmm. te dañoo bokk ci population bi góor xam warul xool ne man am naa oto rek kon nañ ma bu fi BRT am nañ ma bàyyi may transporté mais dafa am koo xam ne kii mm. waxuma la sax sama fii famille la bokk te te du ma ko transporté daa war am gis kooku la ko transporté moo tax ma ne la BRT ak TER bi besoin population bi la kon ku bëgg jàmm te nekk un euh, un homme euh, normal mm-hmm. da nga a adhéré ndax boo ci adhéré looy wax day mel ne kon yow population bi yiteelul te ñun suñu jamoot ak ñun ñëpp ci population bi lañ bokk BRT pour population bi la euh, TER pour population bi la voilà ñu ñëw ci temps bi sax bareetul beneen ponk bu am solo euh, di actualité bi fan yi gis nga semaine bii rek euh, nit yu baree bari góor xuma faatu nañ ci kaw tali bi euh, accident yooyu ban analyse nga si def yow. analyse bi mu ci ko def mooy. mu nekk lu doy waar mais dafa mel ni seetaan ba léegi moo am. wax seetaan moo am. Mm. xam nga seetaan moom am. Mm. nit ñi dañuy wax lan mooy indi accident yi. Mm-hmm. buñ la ko waxee nag da ngay dem uti saafara ca loola ñu la wax. lan mooy indi accident yi góor. tuddoon naa ko ci bari fii. Mm-hmm. oto biy dox te borom du du taxaw fenn di noppalu. chauffeur si dee nañ mhm. jox ma nangam baa ma jox li jël sama oto. Mhm. oto boo bi doo dugg tali boo xam ne bi bu ma jëlee yoonu Tamba yi tamit boo xam ne tali boo xam ne ay millions yi camions doo doublé le boo doublé yaa ngi danger. Mhm. ñu wax ne def leen ko trois fois. pour le bien-être de tout le monde. defoo ko def leen aire de repos defuñu ko seen yoon nekku ci loola. parc bi renouvelé ko renouvelé wuñ ko. borom jur yi. Mhm. amuñu benn savoir vivre. Mhm. jël seen jur sànni ci tali bi borom calèche bi borom charrette bi. Mhm. di daw saay bu ko neexee du am benn benn benn benn benn signalisation. deux roues yi di def lu leen neex particulier di ko def lu ko neex transport en commun ko def lu ko neex poids lourd def lu leen neex. te lépp ñu war kaa mën a corriger corriger wuñ ko ba pare nekk fii. di wax naan accident mënu fi jóge accident mënu fi jóge te yow li fi nekkoon daaw moo fi nekk comportement bi fi nekkoon moo fi nekkoon loolu laa wax ne lu leen neex ngeen di dawalee si kaw tali dama ne yéen tamit jotul ngeen seetaat seen bopp loolu moo jaaduwul laa dama ne nit mm, mm. bakkan du fookaay xoolal 2021 demal demal demal sàppar ñu jox la bag bi mm-hmm. li ci dee ci chauffeur kenn xamul nu mu toll ci ci accident yi gis nga responsabilité wax naa ko benn waaye mun naa ma dañu ne ay xale ba nag responsabilité du ci âge. Mhm. le bon comportement du amul amul âge. Mhm. da gis ku tolloog man nekk irresponsable nga gis un jeune responsable du borom mhm. war a xam ko te di ko appliqué. am ne xam nañ ko duñ ko appliqué am na ñoo xam ne ci xamul dara faf ñu seen i permis. sa permis te xamoo ci code de la route tous. nga xam ko def lu la neex parce que yooyu moo tegul fenn. buy dawal buur ñëwee ba bañ a ñëwal cëm ñun ñoo war a xam ne mm-hmm. nous sommes des responsables on se réclame des nobles on se réclame des professionnels mais du ci wax dañ kaa war a pratiquer ba ñi xam ne ñun ñii nous sommes des nobles nous sommes des professionnels mais bu neewee nag ba mais accident yi bari aussi mm-hmm. am na lu koy créer tali bu amul signalisation da koy créer wax naa ko léegi jur goo xam ne gi amul contrôle piéton yoo xam ne fu leen neex lañu jéggi seen tali mm. dër yoo xam ne nu nekk nu nekk lañ leen jàdde képp ku yore mais particulier bii gi de mm. waxuma yi moom fu ne la ñuy jóge voilà booy moytu rek def accident mm. ak war gaynde yoo xam ne yi ñoo raw maritali mais loolu lépp wax na leen ko ne la lii la mbir maa ngi nii jëru toog ci studio jëru dem toog dem méridien dañoo war a toog xam ne lii la li koy indi li liñ mën a def ba loolu dañ ñu nekk ca ndànk-ndànk bu jeex mais tànk ñu ngi yem ci ay wax bala maa deere ñu naan sanction sanction sanction mooy waa chauffeur bi dee kooku boo xottee permis lu mu koy jëriñ dara permis à point yi ñu waxoon tamit loolu la wax dama ne permis mhm. mhm. ko permis à point mhm. la ko moom dee na yóbbaale téeméeri nit reyaale leen ana permis à point lu muy jëriñ lan lay ko jëriñ dammatoo noonu mënutul dawalati. kon luy solution bi góor a. defar oto yi na baax ah tali yi na baax nit ñi am comportement bu baax. du koy dawal rek moo war a am comportement de. Hmm. saa bu ñu ne comportement rek ñu ne. sóoram jaga njaay ba passé woon. déedéet même particulier bi ak yore moto bi. Hmm. ak yore saret bi. c'est des usagers ñi moto bi moom li ñu ëpp na. waaw fu ne la ñuy toutes les catégories. Hmm. ñëpp a war a am un bon comportement. ñun cheval de bataille bi ñu war am ñun ñëpp sénégalais yi. Mhm. mooy la bon comportement à domicile dans les quartiers. Mhm. fépp ko comportement boobu moo war a am école war a am fu nekk. te loolu nag la ñu valeur boobu la ñu commencé perte. loolu la moo ñëw ba ci transport bi transport dama ne su ma su tuut sa morom mu rey la. boo wane ci biir secteur bi am na ñoo xam ne c'est irresponsable. Mhm. du ñu nitu dara. waaye nag am na nag ay gor ay gërëmi. ñoo ñoo tax nag ñu nekk ba nëgën a ñun gërëmi yooyu. mais kañ ngeen garmi yooyu. waaw ñoo ñëw tax ñu nekk fi mais billahi garmi yooyu buñ moytuwul saay saay saay saay rey lan garmi yooyu ku ci dawal ba ngoon jot ñibbi sa kër mooy toogal ba bëgg a dee ndax sama classe gi ñoo dul nitu dara te ñoo nekk transport. yéen kañ ngeen di organiser benn conseil comme euh, gis nañ Macky Sall ci ci dund gu cher gi euh, woo pour xool solution organiser loo xam ni da ngeen toog ak njiitu réew mi toogal man Mansour Faye chauffeur si toog ainsi de suite ngeen xool naka la ñuy trouver solution. ci accident yi parce que ñiy faatu tamit ay bakkan lañu. waaw léegi bu ñu toogee ak. bu ñu toogee ak Mansour baa ñu toogee ak. Macky Sall waaw wax ko ne lii lii lii lii te defu ci dara la ban njëriñ la. nee nga ne dund bu seer bi mag Sall oo na ci commerçant yeeg. waaw ak consommateur wax ku ne wax daa tax dund bi wàññeeku. ah ñu ngi si de nee nañ d'ici maximum trois semaines. ndox yàlla yàlla sénégalais yi dinañ ko yàlla na loolu am. mu bu ñu toogee nag ci transport tamit dëgg lañu war a waxante gis nga man ku ma war a duma da nga war a duma. c'est normal. Mm. pour man normal. mais ñoom tamit ku leen war a duma dañ leen war a duma ñu normal mbir mi chaîne la bu daggee rek musibaam kenn du ko nag am ko ci sa pàcc. accident bu ñu ne accident rek nga dégg ñu ne. Euh, transport en commun ba camion da ngay dégg naa camion yëpp ay def accident yëpp ay def yëpp ba ci moto yi ñëpp a kenn ku nekk war def benn de cerveau war na man mii kat citoyen la je me bon citoyen mm-hmm. kon naam comportement bu baax te dama ne la loolu mi ngi war a jiitoo ci ñun ñun ñoo war a joxe un bon exemple nga yore auto transport de passager comme nga yore poids lourd mm-hmm. képp ku yore auto di réclamer un professionnel yaa war a joxe mais dafa dem exemple boobu dafa raar léegi. léegi est-ce que yéen yéen transporteurs yi yéen a ngi waxtaan seen biir. da ngay wax ba def ay réunion oo ah, xale yi chauffeur si ñëpp. waa gese la doon wax sensibiliser nit ñi. dama ne sensibiliser chauffeur si. ci loolu lañ dëkk. mais dafa boo sensibiliser am na ñoo xam ne ñii. lu leen neex la dañ koy def am na ñoo xam ne bu duggee ci nopp bi day génn ci nopp ba la je m'en fous la. am ñoo xam ne nee nañ chauffeur yi am na si ñoo xam ne dañu naan tatt de tux seen yàmbaa di dawal naan seen sàngara di dawal drogué wu di dawal yëpp loolu c'est pas normal képp ko def dañ laa war a duma police gendarme bu la jàppee dañ laa war a sanctionné durement sévèrement parce que lu xam ne jaaduwul mhm. duñ ko cautionné kuy dawal mandi am nañ ci yow preuve yu ko kooku warutoo sax dawal te oto drogué wu tux sa yàmbaa dama ne warutoo dawal oto laa la wax mhm. parce que yow danger nga présenté ci population bi sa ak say morom yi ngay dajel mën ngaa sa bopp reyaale kooku ñu ko bàyyi mu dem. dama ne comportement mi ngi commencé ci li code la wax. Mhm. boo paanee nga xam lan yan règle la la code la santaane pour nga mën a génn. da ngay gis oto bu paan borom teg triangle ci oto bu ndaw ak lu mën di doon duñ teg triangle seen yoon nekku ci. Mhm. te loolu c'est pas normal te ñun ci wax suba ngoon am na ñu koy jëfe ak ñu ko jëfewul foo war a def cinquante bëgg faa daw soixante mhm. ñun ñii am nañu sikk. sikk si nag bis bu set ñu wax ko nga mayaat ma occasion moo wax ne ñun ñii transport euh, acteur routier yi mhm. dañoo bari sikk sikk su ci ëpp ñun la te ñoo war defar suñu bopp nag pour mën a réclamer suñu noblesse bi mën a réclamer suñu professionnel bi ñuy wax professionnalisation bi ñuy wax mhm. na ñun nous sommes des professionnels wuru mën a ànd ak ci koy wëyu wuru mën a mhm. nga dund gu cher gi yëg nga ko euh, est-ce que tamit chauffeur si yëg nañ dund gu cher gi nga xam ne pratiquement lépp a yokk dama ne chauffeur yi nga xam ne léegi booy sarax fi nekk dama boo saraxul chauffeur doo am dara boo la sëriñ digalee nga sarax hmm, jox ko chauffeur boo ko joxul chauffeur doo am dara chauffeur yi gën a tumuranke ñëpp kon kay bu dund bi ñu ne dañ koy dañ koy defaraat kay ñu ñoo ci jiitu bu jëkkoon chauffeur moo nekkoon lépp mais léegi chauffeur moo moo gën a nekk lépp kuy saraxe laa la wax bàyyi fi mu si wër doo am dara. mais gëm nga ni mesures yi ñu jël ni euh, Macky ne. dans trois semaines ah c'est des mesures xool gëm nga ah, hmm. hmm. gisee ne kat effectivement ci terrain bi gis nañ ko. Hmm. ñu ñu tàccu buñ gisee ne euh, amul ñu xam ne loolu caaxaan kese la xam nga politicien lu mu la wax. da koy teg noonu à rek. boo ko gisee wax waaw boo ko gisul nga jël ko foofu <laughs> c'est que ñoom ñoo baaxoo ne mm. loo wax dañuy waxu politicien mais li politicien mm, dafa nekk loo xam ne li quelque chose de bari la parce que bu dee boo fenee sax ñu ne kooku de politicien la dafa war a ñoom tamit ñu war a seetaat seen bopp fen waaw wax lu dëgg mm. ñu ne waaye kooku waxu politicien la waaw loolu loo wax lundi bu mardi nga génn ñu ne non non waxu bu ko gëm waxu politicien la booy wax sax gëmul nañu politicien ça devient péché <laughs> péché la léegi. vrai dernière question juste temps bi sax jeex na yow d'accord nga si troisième mandat fii ci Sénégal. a ah, borom de waxagul dara man de bala ma man a wax. waaw nekk nii. Hmm. borom wax ndax di nga nga nga ci loo xam ne borom waxagul nii ñi am nañ seen fulla ak seen fayda. Hmm. yàqamte rek moo fi nekk na am nañ seen fulla ak seen fayda bëgguñu troisième mandat waxagu ko dañ bàyyi ba mu wax bu ko waxee ñu ne ko soxlawuñ ko duma ko. fal keneen teg dem na ba fu mu wax daane man bokkutuma ci waaw ki doon wax ba xar lu mu koy jariñ mm-hmm. moom mi war a wax waxugul man sama wax bi nekk nii mm-hmm. du ma ci wax danga koy denc di xaar koy denc comme noonu mu ko dencee noonu laay dencee sama wàll di xaar lu muy wax waaw moom waxugul lu tax may wax mais ni ngay waxee nii xam naa d'accord si dama ne moom daal waxugul waaw bala moon a wax tey issue bi daal ñu ne Macky Sall def na déclaration mm. nee na day na da ko day bokk boo ma ooyee ma wax la sama point de vue parce que wax na ci waxam boobu laay basé wu mais waxut. mais mais maanaam wax na waxul yow mais en tant que Gora Khouma en tant que sénégalais. parce que euh, est-ce que yow d'accord nga si. Sénégal ak fi ñu toll. ak li fi jëlee maître Abdoulaye Wade xam nga xam nga xam nga senegal même bu dul Macky Sall sax keneen di fi laaj troisième mandat. xam man li ma mënul dégg. waaw. affaire yi mandat de moom dinaa ci wax. Mhm. boo waxee dinaa ci wax boo tamit man xam naa fi ma jëm man. Mhm. nit ñi kenn moomu leen. nit ñi kenn moomu leen mais gis nga problème laa jàpp moo fa war a jógee xam nga dafa ne problème mandat moo fa war a jógee. nit ñi dañoo mën a fal te mënuñoo fële. Hmm. dañuy mer rek di fal koo xam ne ki duñ ko sax xool. exactement maanaam yow daal. fii la taxaw Abdoulaye Wade na fi jóge na fi jóge na fi jóge. ba indi góor gi ne abal ñu abal ñu abal ñu. góor gi dolli ñu. ñu dem ñu ne góor gi moo gën ki fi nekk. Hmm. léegi lu fi des rek abal ñu abal ñu. waaw waaw bu ñu ñëwaatee keneen bu ñu ñëwaatee ñu ne kii moo gën. dama ne nañu xool. kañuy ku amal njariñ sénégalais. jaru ñu koy bàyyi sax six boo bu amul njariñ nañ ko fulli jaru sax di xaar ay mandat hmm. trois cinq ans la jox. Ah, ba sept ans la joxee nii nga commencé di indi kenn xam war a ñu organisation yi yëpp yi am bu la joxee un mandat boo ko bëggee jalgati dañuy def extraordinaire fuli la lan moo tax mandat président ñu wax bu baax bu baaxul yëpp ñu ne bàyyi ko mu eggale mandat lan. Mhm. balaa mandat ba jeex mu yàq Sénégal gépp gasax ah yàq Sénégal gépp <laughs> gis nga ni baax ni ku baax ni ku baax mhm. bu ko utal mandat bàyyi ko saa bu ñëw dolli ko mhm. parce que amal na la njariñ bu amul njëriñ jarul sax cinq ans da nga war a wàcce da nga kenn moomu leen si réew mi dañoo sonn dañoo ah, sonn dañoo yi lottu nañ de duñu wax dëgg mm-hmm. ku ci bëggam réew xam nga Sénégal kan moo fi baax ki nekk opposition mm, kese di mais ku nekk wax dëgg Senghor ba léegi nag nekk ci opposition doo nga fi wax dëgg mais boo nekk au day mel ni du yow day mel ni beneen façon nit la dañ laa changé Macky la meloon ki kay remplacé bi noonu lay mel fii lañ taxaw lu nekk wax ko fi Macky Sall wax na fi lu nekk mm-hmm. ñu ànd moom ci di xeexal di xeex mm-hmm. ba mu ñëwee ñu ne ah waaye waaye waaye li ñuy dund nii de dunduñ ko woon ci tamu Ablaye Wade ci dëkk bu métti loolu laa la wax dama ne duñu ñaa wax ne Ablaye Wade wuru foon jóge waaw mhm. du la góor gi ñëpp bu ñu mënoon mu ñëwaat mu ñëwaat kon ñu ñoo war a xoolaat suñu bopp gis nga problème bi nekkul ci ay at ak xale xale yi xale yi xale yi xale bu fi ñëw te mënoo tous mag bàyyi fi mag man moo gën ci ministre yi ci député foofu la war a commencé ban ministre la ñuy fal ministre bu amal askanu njariñ mhm. mais ministre boo xam ne bi président bi rek lu amal njariñ mhm. ak régime bu mën di doon ak ku mën a pouvoir amul benn njariñ nit ñi day war a député amal njariñ dëkk ba ministre ku amal njariñ ca département ba joxe mais nit ñi ministre yi faalewuñu département moo tax ku ñu dem élection daanu parce que liggéeyluñu ci askan ministre nag mm. xam nga ne xel bu ponkal bi ñëwee day daanu day daanu ah, a Khouma dem élection mënoo gañe fenn temps bi jeex na man de bu doon Macky Sall laa la man man man <laughs> waaw may moom la la wax waaw danga naan bokkot man duma dem trois troisième mandat bu doon mën na laa wax xam nga tax parce que ñi nga jiital ñëpp gañe nañ la bu baxee xeeñ waa koy mënumaa dem élection locale la ma amul genn wàll yëpp ñu nangu ko ma bëgg ma dem législative ma dem législative assemblée ñu ci xëccoog man naa benn lu musul am Sénégal ëppale waaw ay benn lu musul am Sénégal yow nga ne da ngay léegi troisième mandat musiba même bu la ci bàyyee mhm. boo dem ci urne ñu toroxal la même bu la bu xuloo amul xeex amul nga dem ci urne ñu toroxal la man bu doon man xam nu defam bu doon man nag laa wax boobu moom damay raxasu ba mu set Mm-hmm. ne leen réew maa ngi noonu. dem suma yoon waaw làmb jaa ngi noonu. waaw dem suma yoon ku daan dutul baaxati. <laughs> même bu defee tamit nit ñi moom dutuñu ko bàyyi. moom Ngor temps bi jeex na ma bàyyi la nga tàggatoo. tàggatoo ñaan réew mi. Mm-hmm. yàlla do gën ñu ci dolli mm-hmm. ngeen inhibi bi tamit yàlla yokk ko. amiin amiin yéen personnel bi fi nekk tamit ngeen yëg na yéen ñi ay travailleurs ngeen. amiin. ni yàlla ngeen yëg na yéen taxul da bëgg a gis njëriñ ci li ngay def yàlla seen koom-koom seen jàmm yokk réew mi yàlla fi jàmm yokk ñi ñaanal na xalif général des Layènes yàlla gën kaa li fan wu gudd dolli ko wér dolli ko xéewal dolli ko ci jàmm ci ñëpp seen i xalif généraux yëpp diine ju mën di doon yàlla na yàlla dolli jàmm fépp fépp jërëjëf ñu yeesalaat nuyoo permis ñu yeesalaat nuyoo catégorie <laughs> merci beaucoup Gora Khouma nekk euh, secretaire général bu union des routiers du Sénégal euh, di remercier nag suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi 10 heures jàpp 11 heures di remercier Mamadou Diawo Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ba samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures euh, ci avec Ndeye Comba Moreau 10 heures jàpp 11 heures jaa ngeen jëf